peut-être li ma ci wax rek mooy que ci cinq questions yi nga xam ne dégg naa ko ñu posé ko fi léegi ñett yi ñoo ma concerné directement en tant que représentant du premier ministre en charge ministre euh, de l'élevage euh, mooy question Cheikh Fall bi ak question ki nga xam ne moom mooy Pafa Ñing TFM ak euh, ki nga xam ne moo fi représenté rajo Sénégal ci wàllug ñaari question bu Cheikh Fall bi ak le représentant TFM li ñu gën a laaj moom mooy tey ci tey situation actuelle bi nga xam ne moo am fii ci biir Dakar en matière euh, d'animaux yoo xam ne ñoo présent ci suñu biir euh, région bi région de Dakar foofu noonu li ma leen mën a wax mooy que ci datu 18 bi passé mën naa ne décompté nañ fi enregistré nañ fi luy tolloo 84 000 têtes de mouton ci biir Dakar waaye soo ko comparé ak la même période daaw daaw ñu ngi tolloon ci même période J moins onze à plus de 123 000 têtes de mouton foofu noonu kenn ku ne ci ñun xam na ne am na déficit bu rëy bu nekk foofu noonu mais le plus important à ce niveau du déficit bi mais li am solo mooy l'explication par rapport ak déficit boobu déficit boobu benn mën nañ ko nattee ci lenn parce que fan yi ñu génn kenn ku ne xam na ni suñu réew amoon na ay jafe-jafe yoo xam ne yëngu-yëngu yoo xam ne am na ci biir réew mi mais kenn ku ne aussi xam na l'opérateur ak bu mu mën di doon muy éleveur bi muy opérateur privé bi di dem di indi say xar ci gox da bëgg soo ko indee ko mën ko jaay dans des conditions optimales malheureusement ci yenn difficultés yi du yomb moo tax ñu bari dañu néggandiku le temps situation bi stabilisé wu mais au-delà de ça aussi mën nañ ko expliquer beneen fànn kenn ku ne ci yéen xam na ne ci biir dakaar Dakar mën naa ne foo dem ci dakaar c'est des travaux surtout BRT bi nga xam ne yàlla def na président de la République initié na ko boobu noonu defa jaar ci euh, point de vente yu bari yoo xam ne dafay doon am tey ci tey foofu noonu nga doon romb mu am xar bu nooy cette fois-ci ce ne sera pas possible mais n'empêche am na quand luy tolloog fanweer ak juróom-benn point de vente yoo xam ne installé nañ ko ci biir Dakar am nañ njort également que ni point de vente yooyu moom mooy point de vente yu officiel yi. waaye su xar yi ñëwee am na nu muy ñëwee à un certain moment je suis persuadé dina am yeneen point de vente yoo xam ne dañ koy augmenter au fur et à mesure euh, loolu laa amoon loo xam ne bëggoon naa ko tontu par rapport surtout ak euh, interpellation yi ma journaliste yi def je vous remercie